faslun li ab dog la day wax ci dog bi teggiini dem wanag ak ku dem wanag nu muy dindee sobe sa bokk na ci teggiin dem wanag bala ngaa dugg ca wana wa tudd yàlla dana ko wax ca kanam ni allahumma inni a'udhu bika minal xubsi wal xaba'is lim njëkk wax nag mooy bu dee ca àll ba mën ngaa taamu fu laab nga defee ko fa julusun bi taahirin day wane ne bu dee xayta moom day war rek nga àgg suuf ndax taxaw du ca baax bu fekkee nag tuur ndox la bu ñuy wax saw am nag teqale su fekkee barab booba amul benn sobe te nooy boole ja boo taxawee mu baax boo toogee mu baax waaye nag àgg ga suuf lañ gën a taamu bu dee nag barab boo xam ne nooy na ba noppi am sobe foofu kon ngay taxaw ndax boo taxawee itam ndekam barab ba daa nooy sobe sa du la tis ndax nooyaayu barab ba te nag boo àggoon suuf sobe sa fa nekk mën na laa taq su barab ba boolee nag dëgër ak am sobe saye boo rek sori ko seeti feneen ndax dañuy bañ boo taxawee saw ma tis la boo àggee suuf sobe sang fa fekk taq la bu doon nag barab bu amul sobe ba noppi dëgër moom faaw da ngay toog ndax dañuy bañ dëgëraay ba tax boo taxawee sobe sa tis la te itam bu dee ca àll ba bala ngaa wokk sa tubéy baas bis kumba nga yuug ba jege suuf bu dee ca wanawo moom mën ngaa teel a wax sa tubéy mbaa sas kumba du wàññi dara ca na ngay tooge ñu taamu nga yëkkati testalu sa tànkub ndeyjoor te sukkandikoo sa tànkub càmmooñ maanaam ëpp doole ci wetu càmmooñ ndax dana yombal génn ga lay génn génn ñu sopp nga soreele siyaar lupp ñu bañ a jege muur itam sa bopp ndax rus yàlla ak malaaka yi ak ñàkk gestu maanaam bu ko see àgg suuf ba day génn tàmbalee génn duñu taamooti muy geestu ndax dañuy bañ mu geestu gis lu mu ragal dal di bëgg a jóg sobe si la génn takk ko ni sax taamu nañu bala ak suuf moom mu geestu maanaam xool bu baax ba fa dara nekk lu ñu ragal mu teel koo gis da koy yéex andi waaye sopp nañu bala ngaa dugg ca wana wa waa bu dee ci barab ba ngay faj aajo nga wax bismillaahi tudd yàlla ba noppi nag teg ci ñaan gee suñu boroom yàlla nag ma musal ci ayu saytaane yu góor yi ak ayu saytaane yu jigéen yi daañu jàng minal xubb fi ak minal xubu fi xub ak xubu di ci nekk daañu ko jàng gannaaw boo génnee nag ñu sopp nga sant yàlla ne suñu boroom maa ngi lay sant ci tàggale bi ma tàggale sobe si may ma jàmm muy alhamdulillahi alladi adhaba xanil ada wa xaafaani bu xasee bëgg ci wanag wala sax du ci wanag waaye daal àgg na suuf ngir faj aajo moo bëgg mu téye aw làmmiñam bañ a wax jenn wax lu may nag loo xam ne yoon moo ne ko mënoo cee ñàkk wax mel ne mu seen ab gumba muy bëgg a daanu ci mpax wala mu seen gone mu raam jëm ci lu koy lor lu mel noonu moom faaw daa war a wax ndax loolee bañ am ba tey itam bu fekkee dafa ajowoo ndox baa lu mu dindee sobe sa mën naa wootee ne andi leen ma ndox waaye daal bur ngànt rek lañ sopp mooy mu téye aw làmmiñam bañ a wax dara dara su fekkee ne ci àll ba lay demi wanag daañu bëgg mu làqoo lu mel ni garab mbaa ak geer mbaa daal lu ko mën làq rek ba jotu ko gaaw a séen ne sax sàng awraam moom ba kenn du ko gis moom lu war la daañu sopp itam ndegam ci àll ba lay dem mu dem ba sori nga xam ne nit ñi duñu seen jëmmam duñ dégg kàddoom ba tey taamu nañu mu bañ a fekk am pax rek dal cay dem aajo ni ki dal cay tàmbalee tuur ndox bu dee pax moo xam ne moo ko gas moom dara nekku ca waaye nag pax moo xam ne gasu ko dañuy bañ fekk jiit mbaa jaan mbaa lu ko nuru nekkoon ci biir daal di tàmbali génn mu koy séen bu ko ragalee daal daw bu fekkee soo si tàmbali woon a génn mu daal tàmbalee sotti ko ci kawam loolu lañ cay bañ nay moytu soflu ngelaw li bu sofloo ngelaw li day wëlbati saw ma mu del si ci moom bépp barab boo xam ne itam bu ko fa defee ku dikk rek moolu ko rëbb ko te mooy fu ñuy roote mbaa yoon wu ñuy aw mbaa ker goo xam ne bu tàngee dañ fay toog di fa kerlu wala sax foo xam ne grand place la nit ñi baaxoon nañ faa toog nit ki bu dee suba gi mu sedd ñu toog fa bëgg a jaaroo naaj wi na watandiku barab yu mel noonu bépp barab boo xam ne itam daa boole dëgër ba noppi am sobe na ko moytu ndax dañuy bañ bu taxawee sobe sa tis ko bu àggee suuf sobe sama fekk takk ko bokk na ci teggin yi seddali ko seddali ko lool lool buy dem wanag bu bañ a yóbbaale lu am turu yàlla doon ci sax day ab xaalis mbaa ab jaaroo bu ñu def turu yàlla itam na ko moytu yóbbaale ci wana wa araam na nag mu yóbbaale fa alxuraan lu may nag alxuraan ja dañ koo bind gàllaaj bu ëw ko mbaa mu def ca leneen lu ko suturaal kon dana ko mën a duggaale wa nag mën nay joteeg ko muy séer itam te du ko tekki bu taqee sobe rek mu raxas ko waaye daal dugg wa nag yóbbaale ab kaamil mbaa lu bokk ci kaamil daal doonte jenn laaye la moom lu araam la lu may nag dugal na ko ci poosam mbaa am lu mu ko ëmb lu tal kon su boobaa mën na koo duggaale ca wana wa ci gàttal mën nga ne alxuraan mi araama duggaale wanag boo ko xasee def ci sa poos rek sa poos doy na kaaraange mën nga koo duggaale bu dee leneen tam lu am turu yàlla mbaa turu ku ñuy màggal ñu wax ne sib nañ ko ko yóbbaale ci wanag it ba tey boo ko dugalee ci sa poos mbaa ci ab saak mbaa leneen lu ko ëmb rek mën koo duggalaale ci biir te itam ñu xam ne lu mu ci mën di doon boo ragalee ne boo ko bàyyee ci bitti ñu sàcc ko eh amoo nen noo ko def daañu la may nga dugalaale ko ca biir ndax lor jaa tax sopp nañu bay dugg foo xam ne sobee fa nekk rek ni ki wanag nga njëkk a dugal sa tànkub càmmooñ booy génn nag njëkk a génne sa tànkub ndeyjoor fépp nag fu ñu ormaal mel ni jàkka safaan bala dañuy taamu booy dugg jàkk ak fu ñuy màggal nga njëkk dugal sa tànkub ndeyjoor booy génn nag njëkk génne sa tànkub càmmooñ kër nag moom daa am àtte boppam kër moom boo ciy dugg ak booy génn yëpp tàmm nañ nga jiital sa tànkub ndeyjoor bu fekkee ne ci àll bala dana araam ngay dem wanag di jublu xibla xibla mooy fa nga xam ne boo dee julli fa ngay jëm dana araam itam nga wan ko gannaaw ndegam dara doxul sa digganteeg xibla bu fekkee làqu woo dara daal bu dee ci àll ba boo bëggee dem wanag moo xam saw la moo xam xayta la bul jublu fi nga xam ne boo julli fa la ñuy jëm bu ko itam wan gannaaw na nga jublu feneen ba tey bu doon ci àll ba mu jotee ka muy séeli noonu la buñ jublu xibla buñ ko wan gannaaw nañ jublu na neen bu xasee am lu mu làqoo nag moom moo xam aw doj la moo xam ab miir la wala sàkket bu xasee am rek dox digganteem ak xibla kon araamatut teewul nag bañ ngaa def moo gën ndax ormal xibla rek waaye bu amee saatir moom araamatut wa illaa dem ca àll ba la waaye am na saatir wala sax du ca àll ba day ci kër ga ba tey bu dee ci kër gi moom moo xam dem wanag la moo xam joteeg soxnaam la mën nañoo jëm xibla mën nañ ko wan gannaaw du wàññi dara loolu kon ak yaatal la ak jàppandal la bu dee ci kër gi mu bëgg a dem wanag mbaa bëgg joteeg ba muy séyal fu ñu jublu rek baax na te na am nañuy ormal xibla ba nga xamee ne bu ñuy defar wanag dañ koy defaree noo xam ne boo toogee doo jublu xibla doo ko wan gannaaw neneen ngay jublu istibraawul laablu boobu ñu wax mooy ba demee ci wana wa ba tey li bay wër ko ne li génn ci sobe génn na ba jeex mu dara raxas jot bu dee bunt suuf bi moom li fekk ñu yëg ne am na ñu ñëw rek na bàyyi ba loola ñëw ba génn ba jeex bu dee sarukaay bi am na teqale góor ak jigéen ndax jigéen moom bu àggee suuf ba tuur ndox ne sawukaay bay ubbi ko lépp lu nar a génn te jékki-jékki ne soteet génn daal di jeex mën naa daal di raxas rek noonu jóg daal di dem bu dee góor nag góor ñu dem caa ñetti ay ngir lool am na ci ñoo xam ne seen tuur ndox mën naa jékki-jékki ne soteet daal di jeex ni jigéen te am na ci ñoo xam ne mën naa takk ca bantu sawukaay ba bu yooyu nag ne am na takk ca sawukaay ba dañ koy digal nit ñi mooy bu tàmbalee fa sawukaay ba saxe di ko ratt ndànk wut si bopp bi su àggee ci bopp sawukaay bi su daal di koy sigg ndànk def ko ba mu ñetti yoon su jàppee ne la ko doon dañ ne loola baax na na permettre ñu ngi xeeti jax jaxi wala ñu tër ci diineen ba di ratt sawukaay ba ratt bu nekkee nekk wala mu di ko fëgg fëgg koo xam daa ëpp ba mën naa am kocc ba nga xam ne moo daan téye saw bi mujj yorom ba nga xamee ne du mën a téye ci saw bi bu ko defee nag nga sotti ko am njokkale am njokkale mooy saw bi génn rek noonu te du ko mën a téye saa yu nekk bu def noonu moo tax mu boole ci xasaa day def nañ ñoom ñaar xasaa boobu wax suñu jaarul war nañ tam tàncu tàncu mooy dindi sobe si te dindee ko ndox waaye nag am na foo xam ne sobe si ko dee dañu bokk ak ndox waaye bu demee ci wan wa daal moom na dindi sobe si ndax bu sama dindiwaale sobe tàncu nag mooy mu dindi sobe si ba noppi dindee ko nag ndox bu dindee lu bokk sa ndox nag moo tudd istirnaar dana ñëw ci kanam maanaam bu raxas sobe si sopp nañu raxas ko loxo ci càmmoñam te bañ koo raxas loxo ci ndeyjoor loxo càmmoñ bi nga xam ne moom lay bëgg raxas sobe si dañoo bëgg mu raxas ko xaat te taq muy dara moom loxo ci càmmoñ boobu la ndax mooy tax ba dana sobe sa ba noppi du tax mu xeeñ maanaam mooy jënd bi na yàlla ñu bàyyi bunt suuf bi mu wàcc ndax sobe si jëm mën ko raxas waaye bu dawal boobu bañ yàlla ñu lu yàlla bindee bunt suuf bi dafa am ay rafet bu boobaa nag sobe si mën naa yonk ci rafet yooyu sobi set loxo càmmoñ bi nga xam ne moom lañ sottoon nga dindee ko sobe si gannaaw ba raxasee sobe si ba noppi bëgg nañ moom loxo càmmoñ ba nga raxasaat ko suuf mooy ba gis ci suuf waaw ba suñu jamono ji nga xam ne saabu yomb na nga raxasewaat ko saabu waaye ñooñu bu fekkee laata muy laal sobe si raxasan nga ko rek moom du aajoo gannaaw bi nga di ko raxasaat ak leneen saabu mbaa suuf ndax loolu day tax du xeeñ njëkkan ku njëkk a raxas xaat te loolu bu sobe si dana tax bàyyi ko sobe si dama tax xeeñ dëgg ñu bala ngaa dem ci wanawa nga wut la nga xam ne moo dindee sobe si yóbbaale nga xam ne ko am ba téye ko boo dem ca wanawa bu fekkee du ndox xam moom la di ci ay doj wala bant dañoo bëgg mu tóol benn moom li mu tóol tóol soppi ñu ko ndax dafa ñëw bopp li ñu bëgg wax kay mooy bu fompee ci yaari doj mbaa ñaari bant te foofa set daañu sopp mu dellu ca beneen mu ñett ndax mu tóol sopp nañu mu njëkk raxas buntu saw mi mujjee buntu xayta yi ndax ndegam ñaari sobe la te saw mi moo gën a woyof kon bëgg nañu mu njëkkee ko lu may doy koo xam ne nag saa yu laalee buntu suuf ba rek faaw dara génn ci saw ci sawukaay bi kon moom sa yow mu njëkkee buntu suuf ba door a ñëw ci buntu sawukaay bi ndax bu njëkkee buntu sawukaay bi tam faaw mu ñëwaat ci kon maanaam liñ gën a taamu mooy mu njëkk koo dinoo lu mel ne ay doj mbaa leneen lu ko mën a setal ba mu set nag mu doon jël ndox setlee ko ko xam ne foofu yaar yëpp la boole su loolu jàllee nag mu jekki-jekki raxase ko ndoxum kese mu gën fompe ko rek ay doj bàyyi mbay bant rek bàyyi
dafa am yoo xam ne moom faaw ndox rek lañ koy sañ a dindee buñ amul ndox nag tiim rek julliwaale ko waaye moom fomp rek du ca doy mu njëkk a tudd maniyu maniyu bu génnee ak fu mën di taq moo xam day maniyu mi nga xam ne day waral sangu farata wala muy maniyu ma nga xam ne day toj rek njàpp maniyu bu toj njàpp mooy maniyu moo xam ne bànneex génnewu ko mel ne jiite ko fett man yu génn ci moom wala ànd naag bànneex waaye boo bànneex daw ko génne mel ne jurgóotu ab noppam rek am ca bànneex man yu génn man yu mel noonu njàpp rek lay doj waaye sangu farata waru ca man yu yëpp daal ñooyam ndox rek moo ko mën a dindi waaye fomp du ca doy jigéen bu deret di mbërëk maanaam regal génnee ci moom bu àgg ci war a sangu te mënta sangu nga xam ne day tiim rek kon su amee ndox mu raxase deret ja day raxas rek deret ja dal di tiim waaye deret joojee fopp ko rek du ca doy bu doon deret wasi nit ba tey noonu la nga xam ne kon man yi wax dana di waral sangu farata jigéen ju deretam jeex moo xam ju regal la moo xam ju wasin la bi ci nekk day waral sangu farata waaye su amee ngànt ba mënta sangu nag te am ndox mu mën a raxasee deret ja wala te génne man yu am ndox mu mën a raxasee man yu ma bu ko saña fopp rek bàyyi da koy raxas rek su amul lu mu ko raxasee mbaa mënu koo raxas rek mu bàyyi te tiim noona julli ba tey jigéen dañu wax ne am sawam di yem ci bunt ba faaw day tasaaroo moo tax du ko mën a fomp ak morso rek wala aw këyit rek bàyyi faaw da koy raxas moo xam saw la moo xam xayta la su fekkee ba mu génnee dafa tasaaroo weesu bunt ba faaw dañ koy raxas waaye fopp rek du ca doy mas yu day ndox mu weex moo xam ne day layox maanaam du far la koy tax génn nag mooy bu kooko dee xalaat joteeg góor ak jigéen mbaa muy xool jigéen ba am ca bànneex ndox mu weex moomu te bañ a far mën naa génn ci moom waral sangu farata waaye day toj njàpp te it sobe la dañ caa boole nag digle ca leneen digal mooy góor su ndox moomu génnee ci moom di yem rek ci raxas fa mu taq doog yem ci waaye sawukaay ba fam saxee ba fam yem da koy raxas te boole ci yéene boo toppee ñu wax ne yéene ji mënu ci ñàkk kon du baax waaye nag wax ji gën a wóor mooy ñàkk yéene gi du tee bu jullee itam mu baax su mas yu génnee ci moom ñu wax ko ne ko raxasal sawkaay bi fa mu saxe ba fa mu yem lépp lépp mu raxas lenn la bàyyi lenn la dem julli ndax julli ga dana baax wala du baax am na yaari wax te moom nag moom fii mënu fee dëgëral benn wax bàyyi benn moo tax mu ne rek xawlaani boo toppee nag wax bi wax ne waru gar la waaye du tee julli gaa wér bu raxasee leen la bàyyi leen la du tee julli ga wér su defee noonu ba julli ba àggal dañ koy wax ne ko julli nga ba àggal waaye demal defaat ndigal li raxas léppi sawukaay bi ndax ñu wax ne du tee julli gi baax it dañu ne waru gar la kon nag loolu war naa tax nga dem raxas yi léppi sawukaay bi ba boo dee julliwaat geneen julli fekk defoon nga waru gar wa li mu ne nag wa madiin di lazzatin boole ci di lazzatin ànd ak bànneex baat boobu borom muxtasar andiwu ko yoon te bu ci am solo la ndax masdiwma su génnee te ànd ak bànneex la ñu wax ne ndox mënu caa ñàkk kon mën ngaa takk ne buntu suuf bi bu ca xayta génnee teem rek ci buntu nga xam ne tasaaruwut muy góor muy jigéen bu ko neexee fopp ko rek ak kayit mbaa aw doj mbaa bant bàyyi bañ ko raxas ak ndox góor itam am sawam séemé rek ci buntu ba tasaaruwut mën na ko fopp rek bàyyi te fekk na am na ndox waaye nag loolu ci xam ne xës na tasaaroo ba weesu buntu ba moom faaw dañ koy raxas ak ndox du mën a ñàkk fuñ fi waxee ne mënee su ko ñàkk raxas ak ndox nag su amul ndox it day julliwaale sobe sa ndax loola ngant la suñu fi waxee itam ne bu ko soobee fopp ko rekk bàyyi bañ koy raxas ak ndox waxoon nañ ne raxas kook ndox moo gën fopp ko rekk bàyyi fopp ko rekk bàyyi nag moom lay bëgg a wax muy àtte ba ñu koy tuddee al istijmaar dawandiku bu dee dindee sobe lu bokkut ak ndox loolee faaw na nekk lu wow waaye bu nekkee lu tooy ni ki donj suuf woo xam ne dafa tooy bu ko mën a foppe na nekk lu wow fenn rek nag lañ ci jublu bu mu nekk daal lu tooy te it na laab bu jëloon yaxub medd te loolay medd moo xam ne meddam sobe la def na lu ñu taamuwut na mu dindee sobe sa it na ko mën a dindi ba mu set loo xam ne dafa ratax luy ratax su ko bëggee dindi sobe sa du ko mën a dindi du ko mën a setal bu mu doon loo xam ne itam da koy gaañ mel ne lépp lu am ñaw ka mën a xotti aw yaramam bu mu ko dindee sobe te it loolu bañ a nekk lu ñuy ormaal lu ñuy ormaal nag mën naa am daa doon aw ñam moo tax ñu koy ormaal di ci mburu mu wow mburu mu wow wala aw gub bu nekkee ca tool ya gubu dugub wala mboq bu ko mën a foppe sobe ndax lu ñu ormaal la mën naa amit muy lu ñu ormaal ngir dara ji ci yàlla def mel ne lépp luy xeetu mbind rek moo xam araf yi arab la moo xam yenn araf lañ ko bindee dañ koy ormaal ba bañ ko ca dindi sobe bu dee nag alxuraan moom mbaa lu am turu yàlla mbaa turu ak yonante moom day araam mën naa amit mu ngi loo xam ne yàlla ci boppam moo jox loola daraja ni ki wurus mbaa xaalis lu ci nekk mën naa dindi sobi waaye daraja ji ci yàlla def moo tax ñu bëggoon ko leen ormaal bañ caa dindi sobe doonte sax bu ci dindee sobe ba àggal da koy raxas door ko yóbbu di ko jaay ak jënd it bëgguñu ko jël daal lu bokk ci wurus mbaa xaalis di ko dindee sobe bi ci mujj mooy bu mu doon lu keneen moom lépp loo xam ne keneen a ko moom moom mi ko moom amul sañ-sañu di ca dind sobe yu mel ni rek la war a mën a dindee sobe bu bokkut ak loola jaaduwul mu def ko bu ñu nee nangam aaye woon nañ ko bu dindee ca sobe mu jël ko nag dindee ca sobe sa waaye sobe sa dañ na ba set wecc loola kon baax na mel ni yaxub medd dañ ko ne bul ko foppe sobe ndax laabut bu ko jëloon nag fopp ca sobe sa mu set du ko tee baax ñu ne ko sa jaan wàcc na bu jëloon sax loxoom rek foppe ko bunt ba maanaam bunt sobe sa loxoom rek la ko foppe mu set wecc mu fexe ba loxo ba itam set dal nay baax waaye nag taamuwuñ mu foppe ko loxoom rek noonu bàyyi lu may loxo bi daa ànd ak ndox dañ ne woon dañoo sopp bu dee dindee sobe lu bokkut ak ndox lim ba tóol ni ki bu dee ay xeer wala ay bant mën ñett jëm juróom waxoon nañ ne benn moom tóol ni waaye dafa néew bopp te ñaar dafa tóolut ñett nag kon moo gën a néew ci tóol ga ñu sopp mu ne du tee nag bu dindee woon sobe sa benn rek bàyyi wala bu dindee ko yaari bët rek bàyyi mbaa ñaari bant it du tee baax na dara nekku ca daa bàyyi rek wala noo génn ci bunt boobu nu fàttalee ne appareil yi nga xam dañ ciy defaale mbind moo xam appareil portable yi la wala yu demee noonu doonte sax def nañ ca kaamil bi ba mu mat ak quran ba mu mat taxul ñu jàppe ko ne ab téere mënees na ko yóbbaale ci biir wanag ba tey xeeti portable yooyu bu ca defee ay wax yu aju ci alquran mbaa turu yàlla mbaa lu bokk ci xasiday sëriñ bi na farlu ci balaa dugg wanag rek fay ko ndax la ñuy aay rek mooy mu dem ba ci biir wana wa mu jekki-jekki tàkk tàmbalee génn kàddu googee ci biir wana wa wala boog loola tàkk mbind ma tàmbalee génn waaye daal ñi ubbi nee nañu jumtukaay yooyu doonte defoon nga ci sax kaamil bu mat sëkk du tee mën nga ko yor te jàppoo mën nga koy yóbbaale wanag waaye ngay moytu nag dugg ci wana wa mu jekki-jekki tàkk mbind ma génn wala mu jekki-jekki tàkk kàddu ga tàmbale yëkkatiku te fekkan muy alquran mbaa lu ko nuru